dañuy wax nag euh, ci yi nga xamante ne ni ñoo nekkoon euh, mën naa ne ci coalition Yewwi Askan Wi ak yeneen i opposant ñu jàppoon ne dinañ mën a séduire ñi nga xamante ne ni ñoo ci militant yu Pastef tey ñu gis ni liñ doon jortu amul loolu ban jàngat nga si def. waa xam nga euh, dafa am xam nga moom laal doon wax ne la. Mm. parrainage ñu bari dañuy nekk ak nit taxamuñu ko. Mm-hmm. maanaam am na ñu bari dañu jàppoon ni Ousmane Sonko moom bu demut rek. Eh, demut te foofu sax lañ ko doon puus. Hmm. Ousmane Sonko tamit di leen wan plan A B C ba Z lépp c'est Ousmane Sonko. Hmm. ñoom ñëpp ñu àndandoo ci même discours hmm. c'est Ousmane Sonko. léegi nag man bon man politiciens yi laa gis ni nag ñoom ñooy politiciens yi nga xam ni bëggoon nañu. aakimu ay kartam man dama jàpp ñu ñu naïf lañ quoi mhm. maanaam xamuñu hmm. parce que nit du ñëw ci benn laps de temps mu ñëw romb la ci wàllu politique dépassé la def jéego yoo xamante ni bi ay pas géant ne la fif te boo arriéraatee rek 2007 euh, xamuñu ko ci wàllu politique kenn xamu ko te yow xamoon nañ la nga tolloon fenn fi Sénégalais yëpp xam la mu ñëw tàmbali ay 2014 xaw ma 2000 kii. 2014 mu commencé ñëw ne la fif yëgoo fu mu jaar mu jékki-jékki mu tiim la. nga jàpp ni cuune na ba yow ci sa jëmmi bopp li mu liggéey nga mën a ñëw jariñoo ko loolu moo lay wan ne la. muusuñu. Ah, mais alaaji bu ñu dàq loolu kase ku mel ni Barthélemy Diaz taxaw na fii wax ne euh, candidat yi nga xamante ne ni ñoom ñoo àndoon ci coalition pare nañ ku gañe ñu dem jàppale ko kon kooku gay xaarul rek waa ji ñëw jox ko li mu moom. kan Barthélemy Diaz. nee na pare na. daf ne pare nañ ñoom. Ah. si seen coalition bi ñu àndal. Mm-hmm. ku képp ku ci gagné rek dem deuxième tour pare nañ pour jàppale la donc kon bu ñu wax rek ne ñoom dañu bëgg a nangu euh, électorat bu Sonko. yaa ma ko wax. Ah, mais alaay déglu nga loolu bërki di mu njaay Barthélemy Dias wax li nga wax ni question wala yow posé ma question bi <laughs> question bi nga posé la yaa ne ma ñi soxla woon carte kii yaa ma ko wax wala waxuma ko <laughs> waaw may tontu nga ne ma waxee bul wax li <laughs> d'accord néew ma la néew ma la loolu rek moo am da ngay wax lan mooy sa question sa question la dama ne waaw am na ñeneen comme Barthélemy Dias am na ñeneen kon léegi man naa ngi ci ñeneen ñooñ Alaaji yaa gën a comprendre li may wax. Ah, taxawal rek. waaw xam nga dañu ne gars yi dañu fogoon ni bu Sonko bokkul rek. waa ci gars yi laa ne nag. waaw léegi ma ni gars yooyu ci seen biir. am na ku taxaw fii ku mel ni maire de Dakar. mu ni moom ñoom pare nañ ko dem. deuxième non kooku génne ko ci géew bi quoi parce que. Ah, kaay ma wax kooku moom ma wax la leen ci politique. Hmm. Euh, gëw ma ni Ousmane Sonko mën naa tàll mën naa nekkaat ak ku ne. Hmm. mais Barth gëw ma Ousmane Sonko nekkaat ak moom. ah lu tax. ak dama ko xam nga lu tax. Ah. Sonko mën naa nekkaat ak sax xalifa Sall. mais Khalifa parce que xamoon na ni Barthélemy. non xamoon na ni Khalifa Sall politicien la mais Barthélemy dafa ko woon politicien frère la ko jàppee woon. Hmm. maanaam jaraloon na ko lu ne. loolu mënatul diggante Ousmane Sonko ak Barthélemy hmm. mënatuñu melaat nii nga xam ne mooy maanaam Barth ñemeetu la jàkkaaru Ousmane Sonko sax. di waxaat lu jëm ci wàll yi. non mais ba léegi doomu ndeyam la ko. constaté non xeetu ndeyam waaw moom jam nit ki paaka ci ginnaaw naan ko ay doomu ndey xam nga loolu ay nga du politi politicien la mais du politicien bi ñu doon. kon est-ce que nekkul du moom moo def erreur dem ànd ak non non parce que moom anti système la doon woote li Sonko récolté moo ëpp solo ñoom li ñu kii. xam nga lan la récolté xam nga lan la fa lan la fa kii. lim leen ji. la déqi li ñu ko ji réew nga lañ déqi maanaam liñ naan mënoo ji anaana banaana sax fa hmm. Sonko ngor la leen ji ngor googu la déqiwaat dëkk bi yëpp dañuy wax ne Sonko gore ak lim leen defal hmm. ñee lan nañ ko ji liñ ko ji loolu lañ déqi lu ñu leen di wax boobu ba nëgë ni ñu ngi wër di setal seen bopp naan wóoruñu hmm. ay ay li ñu déqi soxlawuñu ko donc kii li mu ji moom rek la déqi donc te bi mu ko déqee woom le na nag fi mu toll ni buñ ko waxoon ne ko niñ koy waxee ne xaw ma ñaata mbaam nga am ci li nga xam ne mooy kii li mm. bari le na ci lool ci li mu déq waaw parce que defe naa ni moom mbirum ngor mm. eh, am na ci lu bëree bari sénégalais yu bari yu ko topp nag yu ko gën a topp loolu lañ ko toppee mm. sénégal eh, nit ñu gore lañ nit ñu gore lañ te nit ñu am kóllëre lañ boo jàppee ni mën nga def yenn yi ci politique après ëllëg si biir mu jariñ la hmm. yaa ngi nax sa bopp hmm. waaw hmm. macha allah macha allah ah en tout cas ñenn ci ñoom de jàpp ñenn ñi jàpp nañ ni ba léegi nii waa ji moom du bokk te mën nañ ba tey récupérer électorat bokkut moom ci jëmmi boppam ndax Ousmane Sonko xam nga seega Ousmane Sonko bi mu ñëwee dafa jaay nit ñi li mu leen jaay jaayu leen sa projet la leen jaay. Mhm. nee na projet bi du man. projet. ne leen lu tuuti laa ci. Mhm. projet bi nag du nit. Mhm. du nit ki maanaam képp koo xamante ni kii nekk nga ca kaw rek yaa jiite projet boobu. dañ daan wax ne xare bu musaanaam drapeau lislaam dañ koy téye maanaam kuñ jam rek nga jox keneen muy ñëw téye drapeau bi yëkkati ko. maanaam fi mu toll nii ci loolu lañ nekk. képp ku gars yi jam kii rek. keneen tee drapeau bi jamono ji drapeau baa ngi ci Basiiru moom la Sénégalais yëpp di xool. ba buñ ko foqatee ci moom nag. keneen tee keneen kan. keneen ñoom ñoo koy choisir du man maa koy choisir. du ma maanaam amoo koo njort. déedéet du ma njort ken hmm. déedéet xam nga lan mooy problème li mooy puissance waa Pastef nekkuñu ñu njortu kii ak kële. Hmm. maanaam dañuy toog rek ku ñu leen joxoñ ñu ne moom la. waaw Abbas de nee na ñoom seen lépp pare. non ku ñu leen joxoñ rek ñu ne diw la. d'accord hmm. a nekk bokk ci Pastef ku nit ñi xam waaye bés bu ko joxoñee rek ñu xam ne waajaa ngi maanaam day mel ni leer gu jóge ci kii dem ci